Euh, déjà même toujours beaucoup n'a ci ñi car ni euh, on a une république euh, du Sénégal mm. mais on n'a pas une république sénégalaise parce qu'il y a une nuance mm. entre la république du Sénégal et une république sénégalaise donc il y a une nuance bu reuy bu ci nek une république en tout cas du point de vue du principe la mm. Euh, njaboot goo xam ne ñoom ñoo fay dëkk. Hmm. dëkk gi ñu fa dëkk nag am vouloir vivre ensemble. Hmm. am lu leen boole ci taarix. Hmm. am lu leen boole ci euh, géographie. am lu leen boole ci itam xëñ na ay valeur itam ñu am euh, xëñ na perspective ci ëllëg. it am na gisin bu ñu am ci ñoom ñii dëkk te fas yéene dëkk te duñ taxale ko naka lañ ko war a lu mel noonu nag suy am muy mbootaay yoo xam ne si xëy wute ci gis-gis danañ wute ci ngëm-ngëm danañ wute ci ay xalaat danañ wute ci yu bari ay sensibilité yoo xam ne si pluralité boobu mooy déjà sax charme réew mi danañu ni kon faw ñu tënk ko teg ko ci ay charte muy ay loi Euh, ak les na ay règlement régir la vie en société. c'est mm-hmm. mm-hmm. ce la constitution d'abord mm-hmm. euh, dañu wax ni Sénégal nous ñoo souverain bi. Euh, préambule déjà. alors. boo wàccee maintenant ba jël xëy 103 articles yi nga xam ne nañ ci constitution bi dañuy feddaliwaat loolu ci article 1 bi wane ni Sénégal république sociale laïque et démocratique là. Oui. Euh, alors euh, très souvent la euh, sociabilité pose problème. poser problème démocratie quelque part hein, man dama entre guillemets. Hmm. parce que la démocratie suppose tout simplement la règle de, la majorité. Hmm. tout en n'opprimant pas en fait les minorités aussi Euh, a na, maanaam jël en compte yi tamit seen aspiration bàyyi leen xel xamni ñun ño bokk ño bokk mm. mais la règle de la majorité la mm. la preuve yaakaar naa ni li tax ñu ne ñu le président Macky Sall ak le régi ak euh, sa coalition Benno Bokk Yaakaar jóge nañ fi mm. question majorité rek la oui Sénégalais lañ ni majoritairement am na ci ñoo xam ne décidé ñi léegi dañuy changer en tout cas de régime donc question démocratie euh, loolu la mais li poser problème ci article premier boobu mooy en fait cette laïcité la euh, fondamentalement parce que laïcité c'est pas sénégalaise Beaucoup gens qui sont des valeur en tout cas c'est le mu na je peux comprendre c'est euh, une oui. la France nous laïque invoquer la laïcité mm. ça je peux comprendre parce que ci seen taarix mm. dañu am ay jafe-jafe yoo xam ne ñoom dañu ko dund muy vécu muy loo xam ne nit ñëpp xam nañ ko en France il fut des temps l'Église catholique, oui. en collaboration avec la royauté, hmm. ñoo jàppoon ce qu'on appelait le tiers état manam moy sambu sura sura bale moy moy mooy hmm. baadoole <laughs> n'est-ce pas daanaka brimer leen euh, toroxal leen euh, am sañ-sañ bu nekk ci ñoom euh, ba loolu bi ñu ay mbootaay jóg ni dañu koy jéem dindi li a tenté en France. Mm-hmm. c'est important li may pour la petite histoire ñu mm-hmm. en France soit l'église ça a échoué. ok essayé nañ l'église protestante mais ça ça a échoué. Mm-hmm. comme nous avons réussi un peu partout en Allemagne dans les pays scandinaves etc. mais ça a échoué en France. Si ñu jëmee réformer l'église en France mu échoué ci lañ ne du à leur fin ce qui reste à faire mooy nañ jàmmarlu église bi xeex ak faire fi la première république biñ euh, la deuxième république euh, quasiment 4 ans sax la am mon na mën ans mhm. soog daanu ans après la deuxième république 4 ans la am daanu ils se sont rendu compte que ni France kenn mënu fay teg dara te lijjanti woo problème église mmh. parce que l'église avait une haute main mmh. avait la haute main mmh. sur en fait l'espace public surtout nag sur le système éducatif. moo doon def dindi bien sûr boo rappelé mm-hmm. la première université d'État. oui mi en 1808. en 1808. 1808. avant loolu toutes les universités église du moo ci c'est un premier euh, élément. Mm-hmm. deuxième élément bi bi ñu université yi en fait euh, foofu moom nañ ci dindi mais li nekkoon ci suuf yëpp ba église bi moo déjà kon léegi so judo. ba balaa di am sax. labbe bi mom moy bénir en fait union bi. moy y sey bi. bu ba dem université. am ci mm-hmm. aussi programme mm-hmm. alors bi lolu a la troisième république en 1870 71 euh, les gens se sont résolus que nous, échec yi république en fait la question de euh, l'église aussi euh, la république doit prospérer en France Jules Ferry double deux lois les lois de Ferry 1881 et 1882 la première loi chaque Français de 7 à 13 ans obligatoirement tu viens à l'école c'est obligatoire mm. l'éducation est gratuite Donc fay drame. Mm. da ngay Mhm. Mais le euh, l'enseignement religieux est supprimé aussi. il est substitué par l'instruction civique et morale. donc en fait ce qu'on appelle une morale républicaine le civisme. Nous, avons été théoriser mais nous ci luy théorisés ko ci La loi loi complété la loi René Goblet de 1886. a mhm. supprimer le le personnel enseignant. Nous avons été théorisés am ngëm-ngëm moy jàngale mais des laïcs ñoy jàngale donc en deux étapes lañ ko def lolo waral bi 1905 hmm. quand ils ont fait la loi de séparation ça a passé parce que génération bob 1880 ba 1900 euh, ça fait 20 ans hmm. plus 5 ans yi ci ça fait 25 ans ñi judd won la ci loi bobu wala ñi ci doon jang nga xam nañ 7 ans bo ci les 25 ans ça fait 32 ans. 32 hmm. ans ñooñu dëgër nañu. moi waral bi ñu la loi la loi est passée. on a séparé l'église les l'exige sax l'état nga xam ne dañ des def euh, euh, ci euh, relevé ci domaine euh, privé alors loolu moment moment indi la laïcité ça peut se comprendre en France ça peut se comprendre en Turquie aussi même vous faites ni un peu plus tard avec l'avènement de Mustafa Kemal la ñu introduit introduire ko implanter la laïcité mhm. tey ñoom Erdogan ci mais ça ne se comprend pas au Sénégal pas au Sénégal ah parce que sénégalais mhm. mais ñun nous un problème

qu'il faut dîner, qu'il faut arrêter, dans le cas où nous avons le nini, nous avons le déguster. C'est Golsa, c'est l'État en général depuis avant la colonie, dans le cas où nous avons le nini de Golsa. Alors, est-ce que vous faites que nous...